asalaamaaleykum mbokku déglukatu réew mi FM dal leen ak jàmm seen émission espace jeune sans filtre fii ci réew mi FM lay amee euh, mercredi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h euh, tey ñu am mbégte contenté daval fi fileuse euh, moom moo créé mouvement Salam Redemption li ñu fas yéene waxtaanee mooy anam yi nga xam ni way détenu yi moom la ñuy dund ci biir prison yi waaye itam seen réinsertion gannaaw ba ñu leen libéré ci biir société bi loolu lañ fiy waxtaanee ku ci bëgg a ànd ak ñun rek. mën nga wootee ay suñu suñuy numéro balaa ma ko kàddu gi moo Fall ma bàyyi la nga nuyoon maa ngi lay nuyu Sylvie di nuyu suñu technicien bi di nuyu Mor bi nga xam ne moo nekk ci direct bi di nuyu suñu gan gi comme ni nga ko présenté léegi nii moom moo jiite ñi nga xamante ni si ñoo nekk ci kaso yi te ñu teg leen loxo. ak ñi nga xam ne jot nañoo génn te nekkuñu ci ay conditions yu baax moom mooy ki nga xam ne mooy seen njaatigee ci mouvement bi nga xam ni ci la nekk di ci yëngu yaakaar naa waxtaan wi tey foofu lay duggee mooy ñi nga xam ne ñi ngi ñoom nañu teg loxo ci kaso yi ak ñi nga xam ne it ñoom nañu jàpp ba bàyyi leen moo xam lu mën a def rek waxtaan bi dana ko gën a leeral mm-hmm. euh, yéen ñi nga xamante ni si yéen ngi ñuy déglu bëgg a ànd ak ñun ci téléphone bi mën ngeen woote ci 88 628 84 84 plus 88 628 85 85 plus 1 wala 88 628 86 86 plus 1 yow mi nekk bitim réew dañu jéglu ci ñetti double 20 point réew mi point com mën nga ñu woo ci 33 841 21 40 wala yow mi toog yor sa téléphone mën nga dem ci facebook réew mi point com euh, mën ñu seetaan direct fii ci studio bi kon si bi dama lay delluwaat kàddu gi ba ci kanam. merci beaucoup Modou Fall comme mbokku déglu yi euh, damay jox le kàddu gi euh, le. ma bàyyi la nga nuyonteeg mbokk déglukat yi gannaaw ba ma la waxee ñu ngi am mbégte kontaan nga toog fii plateau filtre. waaw maa ngi kontaan si li ma toog fii bon maa ngi nuyoo salaamaaleykum di nuyu ñi ma bokkal plateau waa rajo bi réew mi FM di nuyu bépp auditeur di nuyu Sénégal ak ñu si diaspora bi di nuyu ñu nekk si kaso yi di nuyu ñu tëdd si lal hôpital yi di nuyu ñi seen baat dul jëm kaw ak ñu seen loxo jotul mbagg. Mhm. merci beaucoup la le yow yaa Euh, ma bëgg nga ñëw ci turu Salam Redemption ak lan moo ko tax a jóg. waaw man la la ambassadeur de bépp xeetu yonent yàlla Youssoufa porteur de voix des sans voix fondateur de Salam Redemption membre 313 soldats yi war a bokk ñiy xeex ci ëllëg njëriñu Sénégal. waaw Salam Redemption dafa nekk mouvement boo xam ne buñ ko créé yàggul. association la bu say jeunes créé bon man dama bokk ci membre fondateur yi. mais bon Slam Redemption mi ngi tudd se reconvertir en paix. Mm. maanaam parce que on peut pas rectifier le passé sans le futur. Mm-hmm. comprends nga fi ma la waxee. Mm-hmm. xool suñu moromu jeunes yoo xam ne tey commencé nañ dem bay waaj comme ñuy wax échec sociaux. Mm-hmm. échec social ñu xool ñu leen ñuy jàppale xam nga. pour xool nu mouvement bi mun a def ba taxaw si daal parce que réinsertion sociale mooy but bi dañuy xeex délinquance dañuy lutter contre le banditisme. Mhm. dañuy lutter contre les échecs sociaux mhm. échec communal yooyu noonu yëpp. Mhm. bon di xeex liy jëmale réew mi kanam. instant yi nag ñu ngi ci projet boo xam ne. mi ngi tudd péage protection des enfants pour l'avenir de la jeunesse sénégalaise. d'accord euh, le kon Salam Redemption ñi nga xam ne euh, caabi féete woon na leen gannaaw ba ñu libéré leen ñoom ñoo ñoom ñoo ko formé. non pas ñoom pas tellement am na si ñoo xam ne ay membres lañ yoo xam ne bon ils ont vécu le mais boo def milieu carcéral taxul nga nekk benn bandi wala vandal quoi. Mhm, mhm. comme ku mel ni man. Mhm. aw ma benn regret. li tax ma jaar kaso parce que may nekk xale la yàgg na. bon munu ko rëccu parce que munu ma woon jaar fenn wax wax ba dum fa jaar. destin la destin dafa mel ni. nga jël sa ndox xaaj ci suuf rek këpp ndox sa loxo. ndox bi yoon boobu lay topp. pas de regret quoi. si yow ci biir kaso yàgguma fa bu may nekk booy la bon je trouve que ni loolu c'est pas concernant quoi. que mhm. xam ak instant yi nii lu ñu lu ñu war a maanaam li ñu war a wax. Mhm. maanaam que man li ma samay séjour carcéral li ma jot a def. loolu mhm. bon je trouve que ni maanaam lu minime la quoi ak instant actualité li am nii si temps bi nii. problème mu longue détention bi. condition de vie de détenus ñàkk indépendant justice. xam nga bari na tamit quoi yaa aussi tamit gis nga li yàlla def insécurité bi am si dëkk bi. ñoo xam ne tey dëkkuñu si réew mi ay mm. doomu réew mi lañ suñu loxo lañ nekk. yàlla mm. def xam ma nit di dox seen dox. ba yàlla def jëlaale seen bakkan gënal ñu quoi. Mm-hmm. di nuyu famille victime bi. Mm-hmm. di métti loolu tamit xam nga. Mm-hmm. di gën a ñaax état tamit mu jéem a renforcer sécurité. ax tamit éclairage public yi quoi. parce que yii yëpp bon dama koy wax waxaat ko rek. waxoon naa ko instant yii dañ toll si période boo xam ñuy rey étudiant boobu noonu. Mhm. congolais yi. Mhm. am na benn femme la dañ ko violé loxoti bët rey ko. Mhm. te loolu ñi koy def maanaam dañu feebar. wax naa ko bu ñuy violé Binta Camara. ne leen sont des malades qui parmi nous. mais Sénégal tam population bi xam nga rek sénégalais agul dagaj quoi. parce que mandat dépôt signature mi ngi représenté añ ndékki. reer place personnelle assistance sociale mais assistance sociale du benn feebar moo existé muy paludisme. ba de sa fait ni boo demee si détention yi infirmerie gars yi ay garabu ku sibir ay ay ay ay ay paracétamol yooyu la lay jox mais am na ñoo xam ne sont des psychopathes ñi ay obsédé lañu. Mhm. ils sont parmi nous. Mhm. moo tax instant nii ku tabax trente prison non mënoo leen xam tant que wéetuñu wala jekkuwuñu la ils sont parmi nous. Mhm. feebar la bu làqu si nit. comprendre nga moo tax instant il est temps ñu war a filtrer structure sanitaire si biir prison yi. wala soit. ñu créer hôpital spécial pour les détenus. parce mm-hmm. Sénégal une superficie de cent quatre-vingt-seize mille kilomètres car yow am nga trente-huit prisons mais amoo hôpital spécial pour les détenus. Mm-hmm. te les détenus sont des personnes vulnérables c'est ça. am na solo euh, Salam Redemption yéen loo leen di def pour jàppale jeunes yi ñu réintégrer ci société bi. waaw xam ma tamit ñun ton suñu biu combat réinsertion sociale la mais tamit réinsertion sociale comme ni ko mouvement yi di defee rek créer mouvement wër naa réinsertion sociale réinsertion sociale balaa ngay mun a wax am ku dee kaso mhm. wala scandale am réinsertion sociale am na lu ko jiitu mooy la réintégration balaa ngay réinté réinsérer nit danga koy njëkk xam nga tey am na benn voilà am na benn affaire bu am fii suñu nation mooy maanaam héritage colonial la nit day am problème jóge kaso ñu koy xoolee bëtu bandi nga. bëtu bandi parce que def na kaso. maison prévenue la y a que des accusés parmi les accusés y a des innocents parmi les innocents y a des coupables et puis les innocents sont plus nombreux que les coupables parce que suñu justice équitable justice boo xam ne waaye day dépendre si politique. ah lu tax nga ne parmi les innocents y a des coupables innocents kay bu amee. waaw mais dañ la nekk. dama juum parmi les accusés il y a des ouais. innocents parmi les accusés il y a des coupables les innocents sont plus nombreux que les coupables parce que une Sénégal ñaata victime erreur judiciaire moo fi am man gis naa ku ñu téye huit ans xëy na ko dañ la jox la hmm. gis naa ku ñu téye treize ans sous mandat de dépôt code pénal treize mandat de hmm. partout dans le monde fallam treize ans mandat de dépôt treize ans c'est un problème longue détention moo fi andi woon mutinerie ma fi andi woon mutinerie man mutinerie si bunt bi la ma fekk bi may dem xaw ma ne woon daf ma fay fekk sama rakk laa déposé ndéeg mhm. tombé ci jour man maa jël parole seen TV mhm. yee mutinerie longue détention moo ko andi woon longue moo waral mauvaise condition de vie parce que mhm. bu kaso bi doon jël nombre mauvaise condition de vie du am ñun ñu ñuy nekk si cabine bi yëpp mun nañ séddoo benn kilo mburu mais immeuble bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mun ñu séddoo benn kilo mburu quand dañu waxtaan dégg te nga taxaw ne yow exonération détenu par vingt quatre heures ñaata la. foofu laa bëggoon ñëw sax ci conditions yi nga xam ne détenu yi moom la ñuy dund ndax récemment Guy Marius Sagna mu ngi ko doon dénoncé ba tax na prison bu Cap Manuel dàq na ñu ko fa nekkoon directrice. non attends di dëgg la li mu doon dina man Cap Manuel. bu may nekk booy laa fa def c'était deux mille un xaw ma deux mille loolu dafa yàgg. Mhm. xaw ma nag li fa amoon moo fa amaat. Mhm. kaso li fa ne mais de manière générale. gii jotuma ko déglu mais am na leen lu may jot a déglu mu koy wax si affaire kaso naan ñi ñuy futti taatu neen loolu règlement kaso la partout dans le monde booy dugg kaso dañ la war a def yar maanaam. kon ndax yow. Euh, si <coughs> anam yu ñu koy defee la mais loolu règlement la de parce que détation boo gis dafa am règlement intérieur. Mm-hmm. bu ñu la jàppee si détention 1000 francs cellule nga jëm. détention am na ramasse. détention am na embuscade. ndax non mais tout le monde tout le monde ñëpp la lañuy futti parce que tamit parfois tamit dafa am dafa am règlement intérieur aux am na tamit am na tamit ay ay produits illicites yoo xam du daw si détention bi quand même ñoom seen xel xam nga armée booy dugg foog ñu futti la jonkoon loolu mais bon d'ailleurs xam nga nit ki rek si xelam xelu doomu aadama di nga gis ko am sama moroom waajur la comme régisseur bu mel ni Agnès bu mu ñëwee dafa tombé si loolu gis ñuy futti ñoo xam ne ay paa lañu atteindre nañ ay troisième âge ñi nga xam ne dañu war a dem ay chambre ñoo ñëw ne chambre une deux mu ne xaar leen ñu xaar mu ne leen bàyyi leen solaat leen seen yére ngeen palpe leen loolu dama koy rafetlu di ko nuyu après tabax fa ay cabines yoo xam ne pour bu ñu lay futti la mhm. mais soo xoolee règlement bu tax ñu naan règlement état ba États-Unis booy dugg si détention yi dañ lay def comme ni nga ñëwee si kër àdduna daal maa ngi jégalu si wax bi mhm. loolu règlement la quoi intérieur rafetlu nga ko yow d'accord waaw mais loolu rafetlu ma ko mais tamit lan si règlement la règlement intérieur la. loolu noonu kaay ma loolu c'est pas jarul nit di ko kaas loolu. loolu moom wax dëgg yàlla war nañu kaas leneen lu dul loolu. Mhm. parce que li ñu mën a kaas gën na jàmp ko loolu. loolu règlement intérieur boo fa duggee andi fa produit bu illicite nag gars yi ñuy bañ tam yéen ñii si biir prison bi li ñu war a kaas kañ mooy ñu ñuy taxawloo guddi ñuy nelaw wala moom gisul loolu. bu guddi jotee nga taxaw di nelaw. kaso boo demee 100 mètres fekk ko fa bàyyil ba 9 heures et demi ba ñu ñuy reer pare ba ñu tàppee silence nga xool. ba ñu yëg si kaw paquetage bi nga xool gars yi taxaw di nelaw ah. loolu tam ñoom yooyu lañu war a def que ñu nekk fii tamit ay lii am na am ne jarul kaas boo ko kaasee fii ba suba du deñ droit wu garde yi la administratif pénitentiaire dañu am seen droit ñoom. ñoo am na benn affaire boo xam ne ñoom ñooy maintenir situation détenu mënoo leen wax dara lu dul ñu yokk leen seen prime de risque parce que garde yi seen bopp seen vie dafa ne en risque. yee mm-hmm. eh, problème bi xam nga mooy justice. yee mm-hmm. eh, xam nga yow bu ñu la joxee armoire. lu ñëw ñoo la am jëlal ñuux. Mm-hmm. kaso boo koy tabax doo préciser si quantité bi foo la nekk. dañu mun na jël cent il risque cent ba cent cinquante personnes su exagéré. ça day dépendre si justice. Dakar jam ñaa ba jam ñaajo ñaata ñaata ñaata brigade ñoo fi am. corps yëpp ay déféré bu police rek ay déféré gendarme yi am nañu rapport. pénitencier yi am nañu rapport eaux et forêt am nañu rapport service d'hygiène am nañu rapport añ am nañu rapport yooyu yëpp ay corps judiciaire waaye mais ñooñu ñëpp dañ leen ñuy tuuri bu leen tuuree tam foofu day xat régisseur bu toogee journée mu am deux cent rentrants suñ ko nee jëlal mu bañ a jël kenn si deux cent yi dañ koy dàq du ko def te moom xam nañ du fa fanaan njabootam duñ fa fanaan këram maison de fonction mii si biir prison bi day ñuux rek lu ñëw nga ñuux lu ñëw nga ñuux bu ko jotee taxaw quatre cent personnes environ si benn néeg depuis ñaataat ñu koy wax boo waxee ñu la waaw jéemuñu wut benn solution man depuis deux mille euh, léegi mu mat quatre ans maa ngi souligné ay preuves yoo xam c'est pertinent créer leen prison privée pour mën a bénéficier aussi séjour carcéralu booy comme léegi titre foncier kaso lañ ko bëgg a def état loolu moo ne si créé si diggante bu ko defoon gis benn changement si réduction de peine mënoon nga développer si agriculture mhm. mënoon nga yow yaa ngi nii coro ay waxu sondage trois mille morts ak si tali bi oto yi ñoo ëpp nit ñi Sénégal amul tali pré problème prévention routière la parce que développé si infrastructure mais créer chantier publique ngay génnee détenu yi ñuy dem di liggéey ah ñi ñi tam mun a bénéficier si loolu quoi a sera le bénéfice de la nation politique mhm. moo baaxul mhm. politique moo baaxul da ngay wax wax wax wax wax ba sonn quand même def loolu. loolu ndànk fii du tribunal. ah chantier public loolu dafa yomb quand euh, man adhéré naa ci idée boobu wax. ah mais quand ngay tux joint boo mënul bàyyi tux joint bu ñu la tëjee un mois boo liggéey 15 jours dem sa yoon. bien sûr mais loolu tam l'intérêt général la. bien sûr waaw mais quand même bu boobaa. yenn dëkk yi sax d'ailleurs noonu la ñuy def. Ah, non yow coopérative yi ngay signé fii chinois yi di fi ñëw asiatique yi di ay détenus lañ la fi andil bu ñu liggéey pare lan la ñuy bénéficier wu seen séjour carcéral. dam si mhm. toog ay ay ñoo xam ne ay asiatique lañu waxtaan ak ñoom te pourtant boo xoolee quand même Japon mi ngi développé si loolu pays asiatique yi yow nga dajale fii détenu yi comme ça ba ñu fees si dell. pour rien lakkoo leen baxaloo leen loo leen <laughs> defoo leen lenn nangoo leen firi nangoo leen létt mais koo firiwul léttoo ko nga wat ko ndel wala nga coupe carré ko xam nga jigéen nga boo tegul kii da ngay coupe carré wala nga watu ndel mais doo dagg sa bopp quand même dañu waxtaan dégg quoi. am na solo merci Liz Modou Euh, jàngat <laughs> euh, jàngat di njëkk euh, li ma ci njëkk a gis ci xeex bi mooy xeex bu jafe la ci fu mel ni senegal te it xeex la boo xam ni képp ku koy def il faut nga ñeme wéetaay ndax day milieu boo xam ni ñi ko ñeme bariwul mhm. muy lu jëm ci wàllu kaso ak tribunal ak justice ak yu ñi ci ñemee soobu ñu néew la ndax euh, li débat bi mooy ak li mat a xam mooy mboolem koo dégg rek tey muy wax lu jëm ci kaso mhm. koo dégg rek tey muy wax lu jëm ci wàllu justice mhm. en général boo xefee sax mhm. ay mbokki boppam ñoo koy njëkk ni déet yaa ngi dugg ci milieu bu sensible euh, li ma ta xeex euh, la wax na ko mooy xale yi nga xam ne bu guddi jotee ñenn ñi dañuy tëdd ñenn ñi fanaanee taxaw di xoole ba bët set ñu di ko wax paquetage li mat a xeex mooy euh, justice bi fi nekk walla procureur ku ñëw rek mu def mandat dépôt ki sàcc mille francs ki sàcc ginaar ki tux benn juin yamba ki këf benn pochette ki sàcc jakarta ki sàcc ay milliards ku ñëw rek ñu mandat dépôt pourtant am na ñoo xam ni bu ñu jógee ci garde à ñëw ci ay loxoom mu jot ci PV bi war na mën am ay matuwaay yoo xam ni daf leen war a libérer ñu dem seeni kër mu teg leen bët ñu di ko contre contrôle judiciaire bu leen soxlaa woolu leen ñu ñëwaat jàpp naa ne suñ jëloon méthode boobu dina xaw a gën a oyofal kaso yi tuuti. mu wàññeeku li ma ta xeexit mooy di libérer di may liberté provisoire ba may ko reykatub nit bi nga xam ne rey na nit dellu reyati nit nga may ko liberté provisoire mu génn deful ci bitti une semaine rayaat nit Leuz seenub xeex boole leen ci ñooñu nga xam ni tey yéen a ngi xeex pour kaso yi af yéen a ngi xeex pour xale yi am liberté yéen a ngi xeex pour xale yi lekk ndax ceeb yi ñu leen di toggal ci li may dégg ci yéen ñi fay yéen ñi fa yàgg dem wala yéen ñi fa bàyyi ko da wax ne des fois day am xeer des fois mu am gunóor muy yàgg gum fa yàgg ba lerax ni ko olof di waxee ngeen di ko xeex mu doon lu lu am solo ndax nit ki waroo ko jox muy lekk lu bon ndax ñoom ñi fay dugal xale yi di leen toggal seen njaboot duñ leen jox lekk googu li nga dul jox sa njaboot nag waru ko jox prisonnier bi ak lu mu mën a def telewut lu mu mën a def ci àdduna nit lu mu mën a def Sylvie ci àdduna mhm. am na àq ak yelleef mhm. ak lu mu mën a def nag laa wax bu rayoon fukki nit am na àq ak yelleef noonu la ki ñu rey amee àq ak yelleef ki ñu rey àqam ak mooy xañ nañ ko dund ah, la ca des mooy ñi ci biti défendre ko wan ko ni ko sa dund gi ñu la xañ ki la ko xañ daañu ko teg ay daan daani mooy jàpp àtte tëj kon kee matale nga àqam ak yellefam léegi nag ki reye moom it danga nga war a góorgóorlu ci matal ak xam ak yellefam noo koy matale muy condition ya muy nekk mu doon condition yu jaar yoon condition ya muy nekk mu doon condition yoo xam ni nit ku ci nekk bu ñëwee teg ko gët xam ni kii kat reye na dëgg la reykat la waaye nag condition yi ñu ko teg ginnaaw bu ñu ko sanctionné ba pare it nag delloo nañ ko ak xam ak yelleefam Sylvain mbaa xam nga ni du reykatu nit yëpp a bon mbaa xam nga ni du reykatu nit yëpp ñooy rey nit te tey ko mhm. man sama njàngat damay gën a euh, basé wu ci ki rey nit ndax mooy crime bi gën a rëy mhm. rey nit moom fala raay ba téene mhm. mooy daj dëpp gi nit dina rey nit te du bon nit dina rey nit te du ko tey ku rey rayati nag dellu rayaat saay-saay nga dangaa bon yaa ngi def loo tey nañu la jàpp nañu la tëj. damm caabi ja caabi ja waruñu koo damm ndax kon du ñu matale ci yow sa àq ak sa yelleef nañu la jàpp nañu la tëj waaye nañu dab seen àq ak seen yelleef ci yow. Mhm. Sylvie nit ki nga xam ni dafa juum njuumte nañ ko mën a tuddee. Mhm. rey nit nga taxawal ko baar di ko àtte mu jooy rëccu wat ne du lum tey bi mu koy def xamul lu ko ko defloo kooka boo ko sanctionné tëral ko pen bis bu génnee du ca jaaraat waaye ci kaw nga matal ak xam ak yelleefam bari na ñoo xamante ni sii dugg nañu kaso waroon génn rëccu li ñu defoon tuub ko ba duñ ca jaaraat mm-hmm. pourtant ñàkk matal seen ak ak seen yelleef googu moo tax bi ñu génnee ñu defaat lu toll ne lañu defoon wala lu ko raw pour delluwaat prison wax na ko sànq nit day génn kaso dem ci fi mu dëkkoon ñu di ko xool bëtub wëyyu bëtub bandi bëtub reykatu nit bëtub ku bokkatul ci soci ci société bi maanaam génne ko ci nit ñi définitivement loolu mi ngay njëkkee ci kër gi nga dëkk doo ko génn ci mbedd mi doo ko dem ci quartier bi doo ko tas ci commune bi nga dëkk mm-hmm. nit génn na kaso gàddaay ngi faawa mm-hmm. dem ay mbokkam tëgatuñ koy gët mm-hmm. lu ko waral daa xajatul ca quartier ba nga xamante ni si fa la juddoo dañ ko fa xatal dañ ko fa xatal ci reykatu nit la. bët yi ñu koy xoolee. sàcc la. ak la ñuy wax ci moom. jaaykatub dorog la. Mhm. trian la. Mhm. et cetera. Mhm. bandi la. ndax ci kaso bi la génnee. ma daaneel. nit jël nab saagam na fes ay mbokkam noppi koo gisati léegi nag loolu lépp li koy saafara benn li ci jiitu ci solution foofu lay daaneele mooy kaso ma mënul ñàkk. kenn mënul kaas lëg lësëg gii ma rek ñëpp ci yem. kenn mënul kaasa kaasa kaas ba kaso ñàkk feek nit ñaa ngi tooñ kaso ngi am feek nit ñaa ngi jaay dorog ñu ngi leen di tëj kaso day am feek nit ñaa ngi sàcc kaso day am feek nit ñaa ngi rayaate kaso day am feek ñaa ngi këf kaso day am feek xeexe ngi am kaso day am maanaam li ma bëgg a wax bu tooñ jeexul kaso du jeex am na ku nekk ci ligne bi nañ ko jël te dellusiwaat ma teg sama baaraam ko voilà euh, allo Rewmi FM salaamaaleykum bonsoir soxna si ñu leen di ziar lu bari waaye ñu ngi delloo mais maa ngi ci émission bi direct ah. d'accord maa ci biir waaw. tur bi nan la foo ñu woowee. ah Moussa la maa ngi lay woowee Paas Kilo Squad maa ngi koy siyaar bu bari waaye ak gaan boobu waaye coog si yaa ma gën a xam ñu ngi lay. ñu ngi dégg allo. Ah. waaw waaw waaw. waaw lëb ngi lay dégg. ñu ngi fi rek. yéen a ngi ci jàmm baax. jàmm rek da nga bëggoon participer. Eh, maa leen di siyaar waaye Kilo Squad. waaw waaw waaw buur waaye Kilo. waaw. allo. mi ngi lay dégg waxal. allo waaw dem na. Ah, de leen déglu téléphone bi te bañ. di déglu rajo bi euh, numéro bi 88 628 84 84 plus 1. wala 88 628 85 85 plus 1 wala 88 628 86 86 plus 1 yow mi nekk biti réew dañuy déglu ci ñett mhm. euh, waaw fekk tooña ngi am kasoo ngi am. waaye nag nit yàgg na dugg kaso ñu orienté ko teg ko ci yoon ba bu génnee bokk ca tànneef ca askan wa muy fekk ca bitti mm-hmm. doon royukaay bare na fi ñu dugg kaso bi ñu génnee dañu liggéeyaat ci seen life leneen lu ñëpp wan ni kii kat rëccu na dugg gi mu duggoon kaso ku mel ni lëmi mën nañ ko jël exemple dugg na kaso génn sol mbubbam sol dàllam ci xeex ci ne xale yi ñuy dugal kaso mm-hmm. bu ñu génnee nañu leen mën a téye orienté leen utal leen xëy utal leen ngont et cetera na ko sànq nee na mhm. dugg kaso ñu génnee la bàyyi la nga loolu du solution mhm. na état bi euh, créer loo xamante ne si xale bi war a tëdd un mois tux benn juin yamba ñu tëral la att la un mois liggéeyal 15 jours boo xamante day dem ci keesu nguur li ci des bàyyi ko ci yow 15 jours yi ci des nga génn ko ci biti am liberté mhm. loolu solution la waaye nag boobu organisation la ma lay wax ni lu jafe lay doon ndax euh, mas na ma fekkee <laughs> prisonniers yu Mbàkke maa ngi leen di ñu indi ci Euh, kii bu Mbacké euh, stade bu Mbacké pour ñu bay ko mhm. comme lii nga waxoon lañ woon nañ koy créer ci région bu Diourbel bañ leen njëkkee génnee indi leen stade Mbacké Sylvie pour ñu bay ko ñuy waajal nawetaan comme moment bi keroog bu doon 100 prisonniers 70 yëpp dañoo mujjoon di dàqanteeg ñi nga xam ne ñooy policiers yi ndax bi ñu duggee ba ci stade bi xaaj bi dañoo daw di tëb miir bi pour mën a rëcc ñu continuer di leen dàq pour mën leen te fañ jóge woon bis boobu la njëkk bis boobu la mujj pour wax la rek ni la <laughs> loola dafa am lu mhm. xam ne tëdd kaso rek du du du du solution waaye tamit former xale yi ba ñoo xam ni. Mhm. nit wurul rek génn kaso. Mhm. dem defaat tooxi a ñëwaat ci biir kaso bi. pour mhm. jàpp ne kaso bi mooy sa dëkkuwaay bi gën a neex wala bi gën a taaru loolu tamit mooy jiitu. loolu ku ci mel ni yow xam naa ni. ci kanam tuuti da du ñàkk am nga ci tuuti ay solution yoo xam ne dañu ci déglu. ma bàyyi ko mu réagir rek balaa ñu continuer. si condition de vie des koy wax bëriwul quoi du ma demee si télé comme temps bëriwul damay tënk. 38 prison la Sénégal am actuellement amoon nañ 38 ñu confisqué benn bi bu gore gore amoon na prison île de gore mhm. ñu jékki-jékki mu dese ñu 37 37 prison ab bu ñu génnee Sébikotane si affaire euh, pandémie bi pour xam nga isoloir ko gars yi ibbi ko inauguré ko 400 personnes lay jël xaw ma 38 prison la ñu am 100 mètres maison de prévenu 6 prison moom Dakar 3 prévention 3 détention. maison de prévenu mooy ku ñu téye ne la téel ma kii ñu xool ndax présomption d'innocence nga nekk camp ay Cap Manuel ñooy ay détention ñooñu mooy ñi nga xam ne dañ leen coupe dañ da da da dañ sa baaram foofu ñu jël ci ligne bi Rewmi FM salaamaaleykum waaw sëñ bi waaw allo gayen buur naka mu waaye sant bu baax Dame Ndao na mu naa la waaye. jàmm nice gan. waaw waaw waaw mais dara yow comprendre nañ la dégg nga instant nii yaa ma gën a xam def nga sa waar mais déglu quoi ñu ngi si instant yi développé lu am sens xam <laughs> yow gis naa ne yow borom baax nga fu ma ne nga fekk ma fa non membre Slam Redemption la dafa daanu leer kooku buur inchaallah mm-hmm. jaral naa ko lu nekk quoi ñëwal ci condition yi comprend nga fi ma lay waxee mm-hmm. mais kon di kaso yi nga gis yëpp ay ay ay ay maanaam bâtiment colonial la installation coloniale cent mm-hmm. mètres di jël environ cinq mille wala quatre mille et quelques détenus benn néeg di jël environ quatre cent personnes vingt deux heures de temps li lay tëj si toog tëdd dem si jonkoon dem si toog dem si taxaw mais manque d'hygiène bi nekk cent mètres carrés xam nga lan la si néeg yi mhm. te musuma dégg benn élément service d'hygiène bi cent mètres carrés détenu nii amuñu occupation boo xëyee six heures du matin lañ lay yee pour appel ñu jox la sexaw sexaw boo xam dafa am ay max dix heures onze heures dañ leen di mburu boo xam ne comme téléphone euh, genre téléphone yooyu noonu Samsung ñu jël ki ci allo allo allo allo allo waa sëñ bi waaw ah, salaamaaleykum ni ngeen def euh, ñu ngi fi rek waaw ah, maa leen di ziar ça va alhamdulilah bon man la Ibrahima Balde d'accord euh, buum wala boog waaw ah, buum yaa what's up la naka mu nice da ngaa bëgg a eh, participer membre membre Salam Redemption d'accord ci mouvement waaw bi la wax tànk dama ko bëgg a préciser Salam Rédemption am na ay intellectuels uh-huh. y a des en droit uh-huh. xam nga y a des bien calés yoo xamante ne ils sont là pour mener le combat uh-huh. waaw te bëggoon naa aussi encouragé la félicité ko ne ko bravo sumil ko chapeau parce que combat bi combat humanité dëgg la te xam naa ku amul benn niveau yërmande te biir xol doo mën a def combat bi. dëgg la. Euh, parce que li waa ji wax sànq sa collègue boobu dafa ànd ak ay réputation ak ay ak ay wax yu bëri. Mhm. kon soo ñemewul dëgg am courage dëgg am sañ-sañ dëgg am engagement dëgg doo ko def. Mhm. parce que foog nga jël wax yi ak bët yi ñu lay xool yu bëri. Mhm. di ko teg sa kaw di dox ak moom pour jàppale yenn doomu aadama yi xamante ni ci ignorance nekk. wala mënaluñ dara seen bopp comme ñu nekk ci kaso bi. te li la wax la. buum yéen naa la yéen naa la. oui nga ma sama sama kàddu. dëgg la maa lay kanam parce que xam nañ sa capacité. de réaction ak sa capacité d' intelligence. macha allah kon dañ ciy ñaanal mu gën a yokk. Mm. parce que combat bi pas n'importe qui. Mm-hmm. ni ko ni ko gars yi di waxee nag ñun ne prophète chez soi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye soo génnoon dëkk bi nii di mën a combat bi xam nañ ne yow. yaa ma gën a xam dañ lay teg ci kanam. jox la mm-hmm. cër bi cër bi war. mais bu leen fàtte aussi ne dem Redemption day day xeex banditisme délinquance day xeex aussi pour l'avenir des enfants. Mm-hmm. parce que tout ça day impacté wu ci kaso. si on on se bat pas pour l'avenir des enfants ñooñu dañuy vulnérable pour dugg kaso. Mm-hmm. bu leen fàtte loolu. ki dugg kaso génn soo ko xeexalul pour mu am réintégration ba ba gars yi dañu ko xoolee yenn bët yi réputation nga defar ko. du mën a am insertion doo mën a am insertion parce kenn trop mën a euh, jox confiance pour jox ko liggéey gis nga dafa am impact yu bëri yoo xamante ne dafa dafa dafa dafa dafa touché combat bi mhm. ci côté juridique côté social côté environnement sax dafa touché mhm. euh, combat bi kon de ce fait euh, j'appelle à tous les citoyens ak auditeurs yi leen di déglu ñu jàpp ci combat bi Mhm. teg ci loxo parce que waa yooyu noonu toog foofu pour man place am ministère de la justice la woon. Mhm. parce que am na yenn réalité yu bëri yoo xamante ne ñu ñëwul jege ñi nga xamante ne dund nañ réalité yooyu noonu ñoom du a xam ne ñuy génne nekk. Mhm. te yaakaar naa du nekkul ñi toog ci bureau yi ñoom ñooy génne solution parce que xamuñu réalité yi ne ci biir kaso yi. i faut que ñu jege ñi am association yu mel nii pour mën a xam. réalité yi pour mën di apporter ay solutions yoo xamante ne dafay résoudre une bonne fois pour toutes parce que nous sommes au vingt et unième siècle mhm. au vingt et unième siècle kata Sénégal bâtiment colonial mais attendez <laughs> bâtiment colonial bi ñu doon tëj suñu maale hmm? mhm. malgré nag accepté nañ euh, caractère régalien bi état bi am état dafa war comme ni ko waaju waxee kaso mënul ñàkk foog moom ay sanctions parce que day chaque fois day am ñuy tooñ day am ñuy jalgati yoon mais ñun jóguñu pour xeexal ñuy jalgati yoon mais dañu toog pour ñu ñu di xeexal ñi nga xamante ne victime lañ d'une injustice boo xamante ne Sénégal kenn umpale wul mais dafa am ñu doon ñu doon maa ngi jégalu ci wax ji mais dëgg la ñu doon def faux billets anañu mhm. libre nañ ñu rey nit anañu libre nañ oh. euh, merci en boum wax na loolu solo ñu bàyyi la nga yeggali rek. condition yi la ñu mhm. jox la dité boo xam ne dafay am max du ko di ak pain bi décalage de temps bi muy am pain boo xam ne yow sëlëmagoo. Uh-huh. pain bi déjà mun naa ne comme almet lay toll wala soit ñu jël mburu fukki dërëm boole ko set punkal bu ko kii lekkee tey kii moo koy lekk suba. Uh-huh. añ bi ñëw deux heures ñu tegal la jagan jagan ceeb la boo xam ne ay xeer ak sax yëpp mais bon. garaaw moo fi sës doo lekk ki nga toogal moom ngay lekk comprendre nga fi ma la waxee uh-huh. guddi jot huit heures sept ñu jox la cere mboq cere boo xam ne boo si sandee boo si xëppee ndox lii tëmb si gunóor mooy ëpp pepp bi pepp cere yi te am na boo yoo xam ne noonu la ñuy wutee suukar wala meew bul faale <laughs> comprendre nga uh-huh. maa ngi masawu si loolu sax comprendre nga fu ma lay xee uh-huh. guddi jot ñu xaar ba li nga lekk resul ñu tàppe silence ngeen jóg nga xam ne effective bi mun ñu tëdd si néeg bi noonu la affaire yi condition de vie demee biir kaso nag am nay règlement intérieur dañuy tere li ñuy tere si biti am ñoom dañ fay jaay ñii dañ fay tuux ñii dañ fay kërën kaso am na wàccee kaamil kaso am na juma kaso am na néeg bu ne dañ fa wàccee kaamil ñetti yoon chaque vendredi dañuy dem juma fête religieuse ñëppay daje terrain mais kaso tam am na embuscade gars yi ñu dóor si néegi embuscade comme ni ñuy dóoree embuscade si mbedd yi. Hmm. kaso am na cëppeel maan am na défaillant comme nu si biti amee défaillant kaso am na ramasse bu ñu la fekkee benn secteur te waxoo loo fay wut poste nga jëm kaso am na lépp kaso am na kaso si biir kaso am na délit yoo xam boo ko defee bu ñu xoolee ñaari poste moo fa am poste bu ndaw am poste bu mag post bu mag la ñu woowee bureau ba ca ndar. bureau ba ca. ndar hmm. foo la ñuy excité affaire yi xool ndax kaa duñ la dóor mais bu waajee jëb yóbbu cellule ñu yóbbu la cellule. bu waajee cellule nag mooy kasowu biir kaso yi. di nga def vingt ans doo xam cellule. moo gën a bi un mètre la. largeur bi nekk ay soixante cinq centimètres yooyu a xaw ma ou ñu xaaj un mètre bi def si douche cabinet. Hmm. vingt quatre heures un litre ndox ngay am. man gis naa ko laaboo ñeex. xaaj sa ration. sa cours deux heures de temps dañ koy dañ koy wàññi trente minutes ngay am buñ la buñ lay futti di la fa yóbbu boo jiitalul taatu neen nga fay demee ñu bari cellule lañ jommee comprendre nga fa lay yëpp mhm. ay conditions de vie yu ne si biir kaso bi bëggu moon sa di ko wax mhm. mais yow Modou Fall xoolal ku ñu fekk nga toog ñu tooñ la toppee la loo xam ne defoo ko nga nekk fa sa jabar ñëw fekk si la fa ak mauvaise influence bi ñaan la baat nga toog di xalaat kan moo war yor sama njaboot samay doom nga toog au bout temps sa doom ñëw fekk si la foofu nga toogaat beneen au même pas ay weer si biir xalaat ak xel ñëw ñoo la sa yaay gaañu na wala sa papa gaañu na. da mais tamit kooku noo nit am na koo xam ne yenu na noonu yëpp mais kooku naka nga ko nar a réinsérer dañu waxtaan dégg am ñoom ñii kaso seen jabar leen seeti di daj lu ne kaso ñaari nit a koy tëdd yàq ki lay seeti moo tax boo demee si recueil bu ñu def si règlement de la bokk na si recueil bu Nations Unies def. mooy la protection des visiteurs le personnel carcéral le respect la dignité et la valeur de êtres humains qui sont les détentions mais tey lan la ñuy wax fii nous sommes dans l'univers du jeu sans ballon. boo demee justice da tegal benn maanaam symbole de la justice mooy balance bu équitable mais mhm. justice équitable boo demee tribunal da ngay xool ni bu duggee nga xam ne ñu sommes pas au pied d'égalité mais moom lañ la defal si bunt bi mhm. nga dem 600 ñu bindal la mag maison d'arrêt de corruption kan moo mos a gis lu ñuy jàngale 100 mètres maison d'arrêt sax kan lañ fa moo fay liggéey ñu waxtaan dëgg et de corruption amul li ñu fay jàngal nit lu dul toog di xool sa morom wala nga toog kaso bu njëkk ba c'était pour forger l'homme mhm. mais maintenant c'est pour détruire moom moo tax muy mëne yenn combat pour ñu ko musul xam bañ koo xam ñu fa jóge bañ fa dellu réinsertion sociale c'est dafa yomb c'est pour que tu reprennes ta place mm-hmm. mais est-ce que tout le monde a besoin de réinsertion sociale am ñoo xam ne tey boo leen ibiloon bunt yi ñoom ñooy dellul seen bopp si lu ñu ne woon mm-hmm. nit jóge na fi kaso au bout de quelque temps mu nekk président am na ñoo xam ne n'ont pas besoin de se réinsérer soxla réinsertion sociale te réinsertion sociale assistance sociale si bokk yaa ngi naan ku génn kaso rey reyaat reyaat mais y a des psychopathes qui sont parmi nous am na ñoo xam ne ay drogué la ñu bu dul drogue doot ñu dem kaso mais naka ngay def ba filtrer structures sanitaires yi si biir prison yi comme ay sépiat ñuy jox drogué ay méthadone quand même muy raxas seen deret ñu leen forme former si yenn kii bu ñu bàyyee drogue dootoo leen dégg kaso dañu waxtaan dégg ñu ay obsédé sexuel ay xoolal jigéen nu mu mel ak fi nga fi la jigéen jaarale moo tax parfois tam pour lancer une message quoi de la part de femmes na gaa yi bàyyi ñuy assister seen maanaam accouchement jabar yi wala seen copine yi bu boobaa di nga mën a xam njëriñu yaay quoi et puis di nga fa jaaree am yërmande boo xam ne jigéen lu mu mun ti def di nga ko mën a tolérer quoi. Mm-hmm. parce que soo xoolee kook assister di nga ne kon man sama yaay bi may bu ma yàlla di jaarale si moom nii laa meloon parce que da xam ne mii si bakkante diggante du ndax dee jigéen la nit mën a ndamoo. nit loolu la mun ndamoo ku lay jural ak ku la jur nga tiim jigéen amoo loo koy def lu dul tëddee ko forcé ko ñu ne déet nga rey ko mais ani ki rey Binta Camara même pas six mois muy demander liberté provisoire Sénégal criminel la ñuy may liberté provisoire criminel la ñuy gracier nga dem chambre criminelle ñu ibbi ko xaw ma cour suprême xaw ma boo fa demee yaaka des accusés petit dealer tuxatu yàmba su amee quatre criminel kenn ki moo ko tey yeneen trois yi tayuñu ko comme ni nga wax nga lu garaaw te xamoo ko. Mm. noonu la demee tous les criminels les meurtriers présumés de pur espèce sont parmi nous mënoo ko xam tant que jekkuwuñu la. Mm-hmm. léegi nañ jéem a xool nu ñuy def te justice bi na jéem a indépendant ñu bàyyi loi yi ñuy politiquer loi Latif Gueye bokk na si li feesal kaso bi buñ koy voté c'était pour les trafiquants internationaux décalage de temps entre vote ak application bi. assemblée ñaari affaire moo fa am commission de loi groupe parlement bu ñuy voté loi dañu juum dem def ko pour les trafiquants locaux c'était pour la maanaam drogue bu excessif la ay méthamphétamine mais mhm. defuñu ko pour chanvre indien ñu dem appliqué ko ci trafiquants locaux yi ak chanvre indien ñetti paquet korok ñaari grain benn xob korok <laughs> man du ma défendre dealer parce que du ma tux man du ma jëndee saxaar juróom mhm. comprends fi ma lay waxee mais dama lii am mhm. bàyyi criminel ne si biir ay ñoom am na koo xam ne duma la wax turam à part Pablo Escobar kan moo ko dàqaray ku yor chantier cimetière public dañu waxtaan dégg ñu toppee la ay crime contre l'humanité gars yi ne nañ ko bàyyi mu ñibbi ani ki rey taximan bi ani ñeneen ak ñeneen mais boo yi ngay gis ñoo ni jàpp ak ay genre chanvre indien booy ñoo nekk cabine de percussion ana ñi rayoon Babacar chambre xaaral non loolu crime bu ñu neutraliser la doot ñu si dellu nil na comprend nga ma lay xee mhm. booy ñoo nekk foofu def fa sept ans doog a jot papier assignation papier bu lay continuer da ngay dem parquet correctionnel wala chambre criminelle <laughs> nga jot papier bi toogaat ay at. Mhm. déjà yow déjà yaa ngi sept ans sous mandat dépôt nga ne da ngay xeex longue détention tribunal ëpp maison de prévenu dix huit fois. Mhm. tribunal ay kayit ñoo fay fanaan maison de prévenu ay nit a fay fanaan tribunal bi am onze cabines onze juges d'instruction dañu mën a traiter dossiers yii yëpp. xanaa juge boobu amul occupation euh, euh, familiale à part de service nécessité d'enquête bi nekk ci matière correctionnelle xam nga ñaata temps la. mais fan la nit war a toll yow la ba rey ba war a jàkkaarloo nit rey ko loq bët yi comme la xew fee ci Louga. waaye loolu acte psychopathe mooy def loolu waaye ay rey nit di ko daggateeg ñun yooyu bu mu commencé am fii yàggul xam nga problème bi tam mooy affaire de insécurité la. Sénégal du benn plateau laax boo yekk rek dëppoo ko fu weñ jógee dafay tak tëjal suñuy frontière tëjal suñuy frontière te ñu jéem a xool tam étranger yi fiy dugg ñu jéem a def procuration enquête juridique yow la moo la fi indi. ñun mun ñu dem dëkk bu ñu dem Gambie ñoo ko jur te dañuy fay séjour. Mhm. nañu fayloo étranger yi séjour. Mhm. dëkk bi ñu nekk suñu dëkk fees si dell amul ñu benn njëriñ. dañu am problème économie économie contrôle économie amatul instant Sénégal ku am kër ngoo gën a yomb nga am néeg gis naa ko yor un million da ko lekk ba mu jeex te amul néeg ci mbedd bi la mujjee dëkk loo si mun ak koo xam ne nee na moom amul lu mu fayee néeg tant que kasoo ngi fi moom du fay nekk tout le temps day dem kaso di ñëw di dem kaso di ñëw loo si mën mhm. man la laa si mën conscientiser naa ko sonn réinsertion sociale du damay ñëw dóor nit ki mu ne tant que kaso ngi fi amul lu mu fayee néeg mhm. boo amee njëgu néeg bàyyi da ngay xool ni tamit ay politique la tey yaa ngi gis yi dugg ay gaal di dem Espagne Sénégal nekk dëkk bu gën a tuuti yow tu tout ce qu'il te jéemoo ko problème organisme la ñu am te am na loo xam ne ñun ñee loo xam ne suñu amoon organisme tubaab yi ñooy dugg gaal mu jaraleen ñuy dee ci ndox bi pour ñëw Sénégal jëriñ mhm. ñun instant yi noonu lañu ñu demee problème constitution la ñu am moo mhm. la ko tey nga xam ko problème mu constitution la ñu am droit de l'homme ñi war a taxaw naan ñooy xeex ak ak yelleefu doomu aadama yi man sax dama gëmul droit de l'homme man pour man ñi ñooy droit de l'homme comprend nga fi ma lay waxee mhm. droit de l'homme amu fi Sénégal c'est pas un pays de loi ni un pays de droit parce que droit de foo am droit du fa jaay fii droit day jaay la loi c'est pour les pauvres l'univers du jeu sans ballon la fii lépp saale la lépp constitution beeg lépp lépp saale la 38 prison noo ko mënee tabax amoo hôpital créer benn genre pavillon spécial bu ne Dantec yow borom xaalis yi jamais nga ñëw kër nit fekk ko mu ñëw dafa feebar rek dafa lii chaque une semaine ñu dem def visite sanitaire <coughs> balaa ñuy mën feebar dem kaso. ah sa dossier médical gain bu la ko sa avocat defalee parce que avocat ay millions la leen fay boo ko wax booy yi nga xam seen waa kër dañu am problème mu cent mille pour jël avocat bu defee dossier médical bu ko justice accordé dañ lay miite pavillon ñoom pavillon tappale kaay lañ koy def pour tëdd fa seen pen dañu créer prison privée na ko dal. Euh, puisqu'on parle des étrangers la euh, cas bi euh, ki ko rey euh, ba ñu xoolee. Euh, jàpp nañ ni bokkul woon ci ñi nga xam ne dañ koo gracier te bu ñu euh, defee enquete euh, gis nañ am na ñu bëri ñoo xam ne dañ leen di gracier te pourtant war ñu woon bénéficier ci grace du coup ñu ne dañuy changer tour ah, yow de gayen xam nga Sénégal nu mu demee fii nag man waxkat laa fii du waxukaay lépp. an dañ la woo pour nga wax lépp. waxal lépp comprendre ma mais non damay bañ a juum rek si indil rek quelque leeral. dama ne fii du waxukaay lépp. ma ne fii du waxukaay lépp am na loo xam ne tey ñu jël ki ci ligne bi balaa may ñëwaat question bi euh, Rewmi FM bonsoir salaamaaleykum waaw ñu ngi lay fay sëñ bi tur bi ak foo ñu woowee waaw waaw bëggoon participer yow la déglu yaa ngi en direct euh, boum pour gën a leeral ne Sénégalais yi nag mhm. problème bi mooy problème bi ñëpp xam nañ ko liir bi door a julli sax xam na ne Sénégal amul justice spécifiquement de l'école foofu su amoon justice ñu seetaan ndaw yi dem di jëli gaal ba dem mën a fiy jël gaal di trouver yeneen solution avec des armes te ñun ñëpp ñu ngi def léegi débat ak situation su amoon injustice yi ñu def procédure yi gën a gaaw ñu am ñu def provisoire di sàcc gerte wala benn ginaar dañu leen di jëli ba ñu mbar a ñooñu su amoon justice prison bi ay jeunes ñu ko dee ndax ay ma su courant dañu fàtte histoire boobu il faut qu'on se rappelle des faits passés. courant bi maa soog booy bi ci prison bi. waaw chambre onze chambre onze waaw kenn moo ko tudd ana journaliste investigation yi ana on on on parle pas des sujets intéressants chaque jour bi ñu naan dëggal leen seen xol nañu dëggal dëggal suñu xol ba kañ ba fàtte réalité bi ñuy dund. oui oui oui yeneen réalité sérieuse yoo xam ne moom ci dëkk mm-hmm. seen di dee seen di sonn ñu nekk ci politique bi di seeti di euh, justice bi di leen protégé ñun ñu ñun ñun ñu nekk ci ghetto yi ci ci baadoolo yi ci quartier populaire yi ci banlieue yi mm-hmm. ñuy féewale ay non banlieue gaar nga booy Dakar nga te fii ak Dakar ak banlieue nga ko c'est comme métti banlieue métti na mais soo ñëwee fii ci ville bi loo fi fekk ay appartement yu mel ni benn d'ordure ay centaine de nit dañ ko lool. gis nga am na ay réaction yoo xamante ne dañu ciy sarre mais les vraies réalités mooy li li ñu di teg nii dañu wax ci justice bi dañu wax ci ci ci ci détention illégale yi dañu wax ci euh, mandat de dépôt yu ñaar yi te amul sens liñ yàq booy yi benn innocent nga jàpp ko def ko mandat de dépôt mais yàq nga ko yàq nga ko te fii su génnee dootul nekk. te bu leen fàtte benn affaire bi ñu wax la su Sénégal foofu mooy les malades mentaux. mooy ñi nga xamante ne dañuy def ay viol parce que ay malades mentaux lañu ñaari ñuy fàtte dafa ay dof ci biir nit ñi xam ne ñun ñoo nit ñi dafa fekk ay dof lañ tant que xooloo seen psychose yoo xam ne ñun ay dof lañ. kon dëkk bi côté social côté humain côté juridique bi nit ñi daf te comme ni wax démb li ko gëm wala suñu position te position boo xam ne dañ ko defi colonial lañ ko jëlee ci suñu ba ñu mënul conforme ak suñu réalité africaine. nous sommes des blacks nous sommes des noirs il faut que ñu fekkee nga xamante ne que nous-mêmes de notre propre identité parce que déjà li li li nga waay di wax traité international bi mais avant ñuy teew si góor jigéen ñi ñaata problème ñoo fi nekk yoo xamante ne ay problème humain la yu bëgg a tëpp ñu sama affaire góor jigéen ñi ñii fan ngeen yàq ba pare autorité yu mag yi dëkk ci ànd euh, aveuglement yaa ngi si li nga xam ne foog ñu wax ko. waaw quoi. ah recueil Mandela bi fan la ci gars yi toll est ce que war a fekk ba léegi recueil Mandela bi pourtant ñoo ko signé. merci beaucoup merci beaucoup mais bu ñu xoolee jéem a xool traité bi affaire góor jigéen. merci Momo am na ay problème yu gën a gën a problème de. merci beaucoup problème sécurité mu ngi fii. problème sécurité bi tamit foog ñu wax ci. c'est que dañoo ñemewul wax mais sécurité bi dafa bariwaat ci dëkk bi dafa bariwaat ci dëkk bi. Mm. on agresse on tue on vole gratuitement te soo demee. jërëjëf merci beaucoup waaw merci ci leeral yi euh, donc ñu ngi woon ci ñi nga xam ne dañuy changer tour rien que pour bénéficier wu ci grâce présidentielle yi euh, jot nañ ci ab commissaire tey ci suba ab euh, avocat mu ne ñoom li ñuy jànkonteel ci cas yooyu bëri na non loolu maanaam c'est comme par exemple comme li ñuy wax si boyo man ko xaw ma ko d'après li ma jot a fourni li ñu ma mhm. fourni seen formation mhm. dafa génn kaso def la même chose lu ko fa yóbbu loolu mooy récidiviste tu répètes la même chose justice mënul baal kooku. Mmh. wala nga fi wala wala boo gisee nit di joxe faux nom c'est que kuy jaabante si baro la boo fa jógee boo fi ñëwee dañ lay njëkk laaj na mus nga fi ñëw nga ne waaw ou déet am ñoo xam ne sont des dañ lay xool comprend nga fi ma lay waxee léegi tiab boo demee tey ñëw même pas au bu de mois nga daan waat da ngay joxe faux nom faux nom boobu kooku di joxe xanaa moom boppam lay lor parce que buñ la transféré benn prison boo deewoon tey say mboq nii duñ la mun jot. ak tur bi nga joxe. cimetière en commun lañ lay yóbbu. cimetière yi amul tomb. mais loolu lañ koy def pour euh, Macky Sall buy mayee grâce. mu cee bokk non non non non grâce si jum non non yow kaso bàyyi yow kaso kaso booy libéré boo juumee si filiation yi nga joxaat sa da ngay delluwaat si néeg da ngay delluwaat numéro téléphone bi ngay joxe sa famille pour bu amee benn en cas si yow ñu woo sa famille pour xamal ne que na dee nga wala lii wala ou pas kon lan moo tax ñuy changer tour à chaque fois mais c'est parce que li ma la wax la rek da ngay jaabante bi malfaiteur nga yow doo gëj si baro bi te baro bu la xàmmee boo defee boo deful boo ñëwee ñu tëj la waaw parce que baro dala xàmmee yaa xam nag loolu def ba ñëw fa di fa jaabante mhm. mu nekk yow wala ou pas bu nekkee yow bu dul yow boo ñëwee dañ lay tëj c'est ça c'est ça booy di joxe faux nom boo daanoo ñu bàyyi la nga demaat ñëw même pas au bout de mois nga ñëwaat ab beneen problème parce que defkat moo dem nañu. indiwaat beneen tour voilà mu mel ni site bi tey tey man euh, déglu bi damay dàqal sax di di. cinq minutes moo ci des di euh, intervenir ci ci ci débat bi ndax euh, lu am solo la fii la indi mais dama ci dégg ñett yu ma yu ma xaw a frappé tuuti muy cere ji ñu lay jox boo ci sottee ndox. Euh, gunóor yi mooy ëpp suuna bi suuna bi te teewul noonu la booy utee suukar lekk ko beneen bi ci des euh, dagg mburu bu cinquante franc lañ lay jox diw ci beurre boole ko dix personnes dagg mburu bi comme paquetu almet lay toll man voilà ce que j'ai vécu man gis man waaw waaw mun wax munu ma wax lu keneen gis keneen gis voilà boole ci boole ci beurre jox boole ko dix personnes bu ko kii coobee tey ëllëg kee coob et cetera cest à mu wax lu am solo muy amuñu pexe loolu nañuy lekk ci la waxit jaga bi nga xam ne day am xeer day day am gunóor ñu tiim ko noonu lekk ko cour nga yem si benn couloir doo génn doo dem yenn secteurs yi waaw deux heures de nga xam ne deux heures de ñu tëj la ko nga xam ni feebar bu nekk mën na mën na fa bàyyi bàyyikoo jëm ci ñi nga xam ne ñoom nañu teg loxo. Oh, waaw moo ci gën a tuuti fu a ak góor jigéen gi. ndax sëyante bi xale yi sëyante ci seen biir cest à yooyu nag day mat day jot nag. Euh, suñu suñu njiit yi waaw suñu njiit yi ñu ñu tabax yeneen kaso pour kaso yi mën a af bañ mën a séparer xale yi ndax mbirum kaso moom kenn mënu ko waxtaanee ci une heure de temps wala ko waxtaan sax ci ay weer. mais li li yell bu gars yi tabax semi kotaan kaso boobu nañ ko jël def ko hôpital spécial parce il est temps te loolu dafa bokk sax si emploi des jeunes mais am na ñoo xam ne dañ def médecine ay ophtalmologue ñu délibéré kaso am problème mu bët non problème mu rein la amoon moo ko rey non waaw boo renforcer cabine yi bu nekkee onze cabine tribunal grande instance ak rëyaayam hmm. nu mu ëppee cent mètres dix-huit fois mais nga def cabine yi ba vingt cinq sax. Mhm. pour mun a xeex maanaam euh, longue problème longue détention avocat yi tamit association des jeunes avocats maa leen di ñaan ñu jéem a volonté wu si dossier sans voix yi nga xam ne day nekk si cabine yi du bouger. waaw ndax fi may daal man gis naa gis naa ku ñu romance Thiès gis laa wax de new ma dégg dañ ma boole woon ak moom koo xam dañ ko romance Thiès romance euh, bi mu demee ñu def ko mandat dépôt treize ans dafa mujj silmaxa bëti dafa yàqu mu doo génn cest à yooyu nag. Euh, la tànk mu ngi am ci réew mi rek euh, problème du fi jóg te du fi jeex. xam nga tam y a une chose maa ngi jégalu quoi dafa am ñoo xam ne fàtte naa leen wax ñu tam ne leen di bàyyi xel. Mhm. sont des victimes des réjugés mooy ñi nga xam ne kaso da leen bàyyi yoon. Mhm. seen këyit réer ñu def si kaso bi ay at ay weer ah. Mhm. ñooñu leur détention c'est arbitraire. bàyyi nañ la tey suba. Mhm. mais tant que kayit ñëwul duñ la parce que ku kaso ku fa mun munti dugg lu mu fees fees kayit la la fa dugal. Mhm. te kayit moo la fay génne. Mhm. bu sa boo bokkoon ak garde wala chef de cour ndayax bàyyi bu kayit ñëwul du la génne parce que yow gis nga li fi am. xam nga sa supérieur yaa ma gën mais yow da ngay mujjee nekk ci kaso bi nekk fa nekk fa nekk fa ay at. kayit la fay génne léegi man man bëri nañ fa ah. le su ma bëgg a daanele rek heure bi jot na mooy. Eh, xale yi génn kaso ngeen capté leen ndax am ngeen ci ñoom benn solution. am nañ solution tey Slam Redemption day réinsérer sax dof ku mun ku dee rek la Slam Redemption mënu réinsérer mais réinsertion sociale dafa am ay méthodes quoi. Mm-hmm. ñun pour moo wane ni ñun dañuy réinsérer on est en train on est obligé d'aller chercher des partenariats. Mm-hmm. ay instituts. bancaire ay structure commerciale des secteurs privé grand incendie waaw mais parce que ñun Salam Redem man ku mel ni man wala ñee ni wala fondateur ay Ibou Balde kii toog nii buum ñooñu mais ñun mun ñu jàngal nit lu ne mais salaam salaam mi ngi fi mais teew rey gi daa gën a bëri non mais Salam Redemption mënul tere rey am parce que fii li fi am moo fi am loolu du ñun suñu rôle loolu rôlu autorité yi la ñooy tiim seen doom nankaan boo reyee nit ma arrangé ko suñ la hmm. jàppee chanvre indien bu ma woo mënu ko arrangé kan moo mun a arranger rey nit à yàlla kii rey nit la ñu gën a considérer que kii taal benn chambre indien juin bu ndaw làqatu di ko tux reykatu nit bi nga gën a gën a gën a respecté ko ñu comme ça gis nga ñun da on a hérité une héritage colonial boo xam ne baaxul si tubaab bi lañ ko jëlee tubaab seen détention doo fa fekk jeune bu ñu con condamné si consommation chanvre indien mhm. ba pare ñu la koy def loo déggoon la kii wax ñun lu ñuy dund ak ñun constitution bu ñu tubaab bi programmé bàyyil ñu ko fi àndul loolu je trouve que ni benn deuxième esclavage la rek parce que droit de l'homme mënu ànd ak xale yi nga xam ne ñu ci bari tamit ñu ngi ci kaso bi ñu fàttali na atte pour ñàkk avocat jeex na ci biir nañu leen atte waaw li ma mooy comme rek benn lëëm yi fi ak ay moromam bari naa see morom rek porteur de voix des sans voix moo amul Sénégal mhm. am na avocat yoo xam ne da ñuy jox sa xaalis ce jour procès ñëw ñu lekk sa xaalis daw mhm. xaw ma nag xam nga loolu xaw ma. dëgg la avocat la défense waxtu bi jeex na waxtu bi jeex na la. waaw ma bàyyi la nga tàggatoo peut-être message booy lancé gouvernement bi. Mm. waaw gouvernement bi la message bu ma leen lancé mooy lan état man solution yi mu ko jot a jox boobu ba tey na si jéem a saisir benn il est dem mun ñu defandoo lépp mais il est dem maintenant ñu jël si benn soit visite conjugale. ñi nga xam ne dañu ay am certificat de mariage nañ leen valider visite conjugale parce que chaque jour nga dem couloir par couloir gis mm. ku ñëw di ñaan jëkkëram baat te fasewu ñu ko fa état na créé réduction de peine mhm. pour mun a bénéficier aussi séjour carcéralu booy booy léegi yaakaaratuñ kër wala terrain de mandat de dépôt la ñuy baaxoo signé naa temps mandat de dépôt kaso lañu bëgg a jël def ko kër te kaso bàyyi kenn moomu ko suñ ko jaayaan ñi fa doon tëdd ñi fa gën a yàgg dërëm duñ la ko jox. Mhm. comprend nga fi ma la waxee. Mhm. ba pare maanaam di conscientiser jeunes yi tam parce que société dafa soxla ay jeunes yu conscient yor mhm. influence yu positive. man li may ñaax xale yi mooy xamal ak seen i waajur nañu encadre ndaw yi seen jàng. jéem a xool nu leen protéger pour leurs avenirs avenir u ndaw yi ñun mooy suñu chance. ba pare tam naa la wax benn affaire ah, si état avenir u ndaw yi mooy suñu chance. ñun nous sommes là la protection des enfants mhm. pour leur avenirs gis nga instant yi lépp looy xeex te boole aussi éducation yaa ngi juum quoi la meilleur héritage grand c' est l' éducation mhm. dañu xool ni ñu xale yi mhm. parce que ëllëg ki jàng ki xam moo mun a diriger réew mi moi j'ai besoin de savoir plus pour sove mon peuple comprends nga fi ma lay xee aw ma doole woote ma doole mbooloo j'ai qu'une seule vérité j'ai qu'une seule arme c' la vérité merci la bien. Mm, jaajëf xale yi nañ jàng. merci le système éducatif waxtu wi dab nañu. waaw même waxtu bi nañu waxtu bi li may wax moo ko bu sens. ay <laughs> xale yi nañ leen wutal yeneen système éducatif changer loisir mais jeunesse bi ñaari loisir la ñu am nawetaan làmb. la di nga ñëwaat su jeexee nga gis booy yu ay arme blanche yu reproduire. la di nga fi ñëwaat di nga di nga fi ñëwaat. journaliste yu tànk journaliste yu tënk xibaar yi ñu ngi taxaw. voilà dañ koy sant di ko gërëm rek. voilà ba mercredi di ñëw rek beneen thème di nga fi ñëwaat fi ñëwaat merci beaucoup di nga fi ñëwaat euh, journaliste yi tënk xibaar yi ñu ngi taxaw euh, doo dee yow dara du dal <laughs>